Je vous la remercier féliciter également la population du département de Gossas notamment les électeurs qui se sont mobilisés aujourd'hui pour venir voter pour l'élection présidentielle. Euh, on vient d'avoir des résultats qui ne sont pas encore officiels parce que résultats officiels la commission départementale de recensement des votes moom moo mais dispositif de remonter des résultats. Il s'est trouvé que c'est la coalition Diomay que je félicite, qui est placé premier avec 13 127 voix. La coalition Amadouba, dont j'étais le coordinateur départemental, s'est retrouvée avec 11 640. Je félicite tout le monde, tous les militants de Benoît tous les militants de la coalition qui ont travaillé pendant plusieurs jours pour donner cette contribution. Je signale qu'au Sénégal, c'est 7 millions d'électeurs nous avons contribué pour 11 000 et quelques pour notre candidat. Et on va essayer de suivre la compilation au niveau national et sereinement, nous allons attendre les résultats. Mais globalement, nous remercions la population de Gossas pour la sérénité le calme, mais également le fair play qui a prévalu pendant ces élections-là. Si Wolof, département Gossas, élection lañ def, population yi di en place des dispositif pour un résultat nous la coalition Diomai, mon modèle premier, avec 13 127 voix. Coalition Amadou le candidat Amadou Ba, 11 640. Nous félicitons la commune Kolabal, nous avons la coalition Beno Bokyakar, en avons 2644. Coalition 2 2308. Nous félicitons également la commune de Patarlia, nous avons la coalition euh, Benno Bokk Yaakaar en 1793 coalition Diomay en 1364 Il encourager la commune de Gossas la commune de avec la commune de Ndianalagan ak Wadiour ñëw fi nga une coalition Diomay, et à la fin de la journée le département a basculé Diomay en 13 127 Amadou Ba 11 640 Sénégal a 7 millions de nit bindu xam taux de participation de 50

parce que pendant une semaine li nu waroon a def yépp def nañ ko pour yàlla may ñu ndam lii la ñu yàlla may onze mille et quelque moom la ñu jox Amadou Ba yàlla na doon jiglaayam ñoo ngi suivre nag résultat yi continuer nag liggéey suñu waar pour continuer di développer suñu commune ak suñu département. donc monsieur le maire euh, question bi ma bëggoon a laaj rek euh, dañuy des si dëkk bi euh, selon vous lan moo doxal cette fois-ci ñu am yi. bon de toute manière dinañu jël temps parce que bëgguma gaawantu. avons euh, ngi avec ak staff avant même de di ñëw à décrypter mais comme nous le faisons chaque année nous, bu bu élection jeexee bu mu avons ba résultat officiel nous dañuy dajaloo une évaluation Nous avons fait la même chose comme nous avons fait au niveau d'abord de la commune de chaque commune mais également commune bu nekk envoyé ay représentants nous diagnostiquer comportement électoral qui ci élection parce que également n'avons pas pas beaucoup. personnellement gis naa ci campagne bi ay nit yi nga xam ne bi ma leen di porte à dañu ma bu fekkoon local la dinañ ñooy jàppale waaye lii national la dañoo bëgg nga bàyyi suñu bokk moo tax affaire yi dañ ko war a rafetal te bàyyi ci xel bañ cee xam leen ne lii parce que ça n'a rien à voir avec des élections locales man leer na ma ne am na ñi nga xamante ne nii bu yàlla defoon ñu dellu ci dinañ ñu jàppale ni ñu war a jàppale waaye élection yi le comportement de l' électeur on va l' évaluer dinañ ko xool loolu moom moo tax daal pour le moment bugguma gaawantu dama bëgg a bàyyi également comme am nañ benn comité scientifique bi nga xam ne d'habitude bu élection amoon ba ñu pare ñoom ñoo koy évaluer comité boobu en 2014 quand on a gagné le département trois communes et on a perdu trois communes nous ñoo réuniroon def rémédiation yi nga xam ne ñoom la ñu waroon def ba dix ans plus tard ñu am ni ñu am cette fois-ci aussi demee ni on va voir pourquoi Patar a gagné, pour, pour, pour nous renforcer Yenen commune, pourquoi Colaban a gagné, nous renforcer pourquoi nous aussi, on a perdu dans les autres communes, nous devons faire une remédiation. Parce qu'à nous, c'est un comportement en dents de si surtout en politique. Donc, deuxième question, surtout les on a vu pratiquement que trois février pour ne pas gagner. selon vous, est-ce que les gars aussi ont un candidat au niveau de la commune, aussi beaucoup de facteurs Nos candidats, vous savez, les résultats, daanaka moo lay won ñi amoon yéene wotal ko sax dafa mel ni dañoo wotal jomay pour définitivement faire basculer la commune et le département loolu moo tax mané la bëgg ku dugg ci cause profonde yi mais s'il y avait un comportement correct de l'électeur ku nekk fa nga am yéene ak ñi doon campagne ku nekk woote fa nga yaakaar woote kon do am loolu mais y a eu y a eu un report de voix bi nga xamante à coup sûr évaluation bi dina ko génne mais ce n'est pas le plus important le plus important c'est que ñun li ñu mënoon a joxe la ñuy joxe man Falfi, may fal député c'est moins de 15 000 voix Bion, Amadou on a pu lui donner 11 000 et quelques voix la yalla dogal wër département bi la c'est 11 000 personnes qui nous ont fait confiance qui ont fait confiance au président Amadou Ba ñu ngi leen di sant di leen et puis on a dé parce que bu dañuy continuer dem waxtaan ak suñuy militants surtout ñi nga xamanteni mis un ci porte à porte yi amna liñ ñu dé té loolu mënuñu ko wax fi ci caméra. est-ce que nek na surprise wala lu leen la wala bon quelque part man amna luma betout. mais xam nga le chef ne montre pas sa faiblesse même en cas de doute absolu parce que aussi bu dee da nga diriger ay troupes, amna noy woné sa faiblesse bo général rek affaire bi day gëna a grave loolu moom moo tax nañu ay bribes d'information parce que aussi faire de la politique c'est essayer d'avoir de maîtriser l'information Amon na ay remontées yi nga xamanténi ni mi ngi nañ ay personnes yi nga ils sont décidés à avoir un certain comportement pour ces élections là L'année li peut-être c'est contre moi l'ennemi c'est contre mon système l'ennemi c'est contre le, système même qui existe etc lors mon motar euh, affaire aussi jarul sonu yenn sonu mais nous, nous nañ né li c'était prévisible mais xamoon nañ né aussi défaite bi mën parce que 11 000 à 13 000 il y a 17 candidats qui sont là. dara donc mën wax né les gens se tiennent à, au coup d'un coup entre 40 et quelques et 40 et quelques Il 50 dans le département de l'Ossas. des heures si vous avez des questions. voilà salaamaaleykum. waaleykum salaam ma leen di nuyu avant tout may jaajëfal sama naataangoo yi. si Walf maa ngi benn question rek bu may laaj. ginnaaw bi nga xamante ne si résultat yi génn na gis na provisoirement fii commune bu Gossas Diomaye def ko gagné ban satisfaction nga am si jeunesse bi alors que bu ngay doog a si euh, camp bi bi dafa am kàddu yooyu yëkkati woon ne borom dëkk bi ñëw na est ce que tey jàppoo ne population Gossas dañ lay trahir. nga ki nga xamante ni am réew lay wut te man ma doon ab c'est pas des xam nga comparer une fraction il faut comparer une fraction en mettant des dénominateurs communs li leer ba leer moy responsable yi nga xamné ñom ñoo représenter fi bu ñu né victoire Diomaye bi ñom rek ñoko mom moom bu ñu ci delluwee muy élection locale dina leer ça n'a rien à voir en science politique faut comparer des choses comparables élection locale la comparer ak élection locale élection présidentielle kenn du ko comparer ak élection locale ñun dañ doon contribuer pour Amadou Ba am parce que dafa am ay réalité

bàyyi ñu ñu def suñu xalaat ba ma yégué lool la xamné ne am na lu war a xew ci élection yi waaye nak suma ko waxon samay tur mën nañoo décourager looloo tax le chef ne montre pas sa faiblesse en cas de doute absolu mais da ngay continuer di liggéey rek ba lu résultat yi génné muy noonu mais nak damay gërëm waa 106 wa Kër Elhadj parce que tey ak nu mu mun di demee mu doona gëna metti ñu ne le maire a été battu dans son propre bureau de vote mais yalla subhanahu wa taala dogal na fi nga xamanteni japp jàpp nañu moy sama fief moy sama base fofu sagal na ma te fofu dong sax lañu gagné dans la commune de Gossas kon ma ngi sant ñëpp de façon globale ci effort yi ñu def way ñoo ñu maa ngi leen di beral sant bu baax bu baax a baax Terima kasih.